salaamaaleykum mbokk internet yi nuyu leen bu baax a baax am contentement am mbégte jën ak yéen chaque jour rawat na dina jukkil li gën a fas xibaaru làmb noonu laay def ne saraax mercredi 19 octobre 2022 journal suñu làmb ba mu xëy ci xëtam mu njëkk Mohamed Ali sur le choc du novembre Papa Sow Siteu ce combat dans les annales ndax mu wax ko nee na combat bi dina des ci axlu làmb waaye dina des ci xelu ñëpp lu tax dafa nekk combat bu ñu namm waaye nekk combat bu ñu bëgg waa jàmbaar production dara ñu koy indil mu nar a nekk combat bu nar a neex ñu mën cee xaarandi surprise yu baree bari waaye bëgg ci li nga xam ne nii mooy làmb ji jeex ci jàmm ba léegi nag Boy Seye Zos c'est des adversaires communs de Papa Sow ak ko Papa ak nga xam ne mooy Siteu ñoom dañoo bokk adversaire en commun bokk Zos bokk booy Sey Papa Sow nag bëri na ak Boy Sey daal di koy daan Papa Sow bëri na ak Zos daal di koy daan Siteu bëri na ak Boy Sey Sey daan ko bëri na ak daal di daan Zos ba léegi nag ma ñëw tuuti daal di fàttali palmarès su ñaari mbër ya ki nga xamante ne nii mooy Siteu 16 combats am am 11 victoire Siteu moo daan mbay 20 ans daan ki mooy bébé Eumeu Sène daan Zos 3 daan Naxa Naxa daan Frazier daan Rouge Bordeaux daan Naaru Sogas daan Malaw Seras daan Pape Morlo daan ki nga xamante ni mooy Zarko ba léegi nag moom am na 4 défaites moom tarkindaa bi moo daan Mamballa moo ko daan Boy Sey moo ko daan ki nga xamante ni mooy Sa Thiès moo ko daan waaye Guy gi moo ko daan Papa Sow am na benn sans verdict digganteem ak Papa Sow la mooy lamb ji paase ba léegi nag Papa Sow moom am na 33 combats. am na 23 victoire sëriñ moodu bu baxaay bu baxaay moom la daan daan ki nga xamante ne nii mooy ñambaali léegi Papa moo daan ki nga xamante ne nii mooy Landing Dramé daan ngañ daan moodu nduur daan booy Jinne daan ki nga xamante mooy Abdou gaa ga daal ci teg ki nga xamante nii mooy Bagal daal di daan ki nga xamante ne mooy Aliou Mané daal di daan ki nga xam mooy Ibrahima daan Doubless daan Kati daan Cheikh Ngiraan daan ki nga xamante nii mooy Santan Gning daal daan Dun Xaaf daal di daan ki nga xam mooy Paul Maurice janvier 2008 daan Tafa booy Bambara daan ki nga xamante ne nii mooy Boy Sey cinq décembre la ko daan 2008 daan Bac Seras daan Tonnerre daan Zos deux fois daan Bayma Ndione dafa mel ni ci Bayma Ndione la gëjee am victoire ba léegi 8 défaites la am nag Malick Thiandoum Malick moo ko daan. le 20 février 2004 euh, Forman 2 moo ko daan Balla Gaye 2 moo ko daan Alamdar moo ko daan Modou moo ko daan Nees moo ko daan Ama Balde moo ko daan ak ki nga xam ne mooy la de waaye am na nul ki nga xam ne nii mooy Cheikh Niang la nulal le 16 mai 2007 sans verdict ba nag digganteem ak Siteu la ba léegi. ba léegi nag ca Balla Gaye 2 la jëm ces dix dernières années contre Boy Niang numéro 2 Balla Gaye le plus dangereux pour Balla Gaye maanaam Boy Niang 2 moo nekk combat bi gën a dangereux ci Balla Gaye ci dis dernières années yi mu bëri lu tax ñu wax ko Balla Gaye de ñaari défaite yu ko gën a metti Pikine la jóge ba tax na boo ñaar su waxee ak moom da ne yow li lay daan mu nga biir Pikine maanaam ñun xam nañ li lay daan combat bi nag dafay bëri tension ndax Boy Niang dafa dugg kër Balla Gaye daan raqam kon pour Balla gay raxas ba mu set foog mu daar ki nga xam te ne nii mooy Boy Niang maanaam risque ya dafay bëri lool ci côté Balla Gaye Assane Ndiaye borom Bawol production moom nag ma nga jëm ci journée mbay am la 11 février mu ne je veux organiser un super gala de sept grands combats lu tax moo ko nit ñi di benn grand combat la ñuy def teg ci ay préliminaire moom nag borom Bawol production Assane Ndiaye nee na sept grands combats laay teg maanaam set grands combats yoo xam ne bu ci nekk grand combat la may ni leen ko ci benn fan kon nag la 11 février nañ ko xaarandi ak Assane Ndiaye promoteur bu mag bi moom làmb bu mu dëgg day neex macha allah kon nag surprise ya nañ ko xaarandi bu baax ka ca bëgg danga dem ci arène nationale daal di fekkee lamb yooyu kon sept grand combat ci benn fan loolu du hasard te du te du lu ndaw waaw ba léegi nag soq bu ndaw ak talfa soq bu ndaw nag dafa duggaat biir parcelle. dër bi parcelle Pikine commencé waat na ba mu génnee parcelle digganteem ak Petit dafa duggaat parcelle jëlaat nga xam mooy talfa di jarbaatu góor a soog kon mën ne raqu soq ak jarbaatu góor a ñoo war a tase 17 décembre incha allah ba léegi nag mbaytin ginnaaw ba mu daanee xeeru ngor numéro 2 mbaytin nag mu ngay fësal ay ambition bu baax a baax ci journal suñu làmb moom nag la muy xam leen nee na moom pare na pour bëri ki nga xam ne mooy qualifié ak kébel waaw la bëtt bëgg daal la bar bëgg euh, ba léegi nag ñu jëm ci combat bi nga xamante ne moo war a am le 23 drapeau ki nga xamante ne mooy Makan Meng di doomu Gaston Meng armée bu ngéwél moom mag moom pour mu waajal combat bu baax dafa dem ca Maroc daal di fitoo ay armam bu baax a baax ngir yokk bu baax waaye jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy ñaabu ndaw kanta ñaabu ndaw nag moom ba adversaire demee Maroc moom dafa dem Gambia people daal dem yokk doole moom tamit yokkaat kattan bu baax a baax waaye yokk li nga xam ne mooy confiance ba tax na bi mu génnee ne j'ai pas peur de armée bu ngéwél armée bu ngéwél dafa daal di génn daal di koy tontu ko tontu du forox bu fekkee da ngaa jàpp ne yow tu es vainqueur ko ca làmb maanaam yaa ngi nax sa bopp ba léegi nag bisum tey jii suñu jógee Bessa Yawoo fekk fa Papa Sow le piment de parcelle moom nag suba ca jeudi ba dañuy dem fi nga xam ne ne mooy jon waa daal dafay fekk Siteu Siteu nag euh, face à da ko woote waaye village natalam di dëkkam fa la ko wootee ngir ñi fekk ko fa ba léegi nag beneen face to face bay am diggante Bombardier la B52 de Mbour ak Tapha Tine la géant du Baol face to face ba nag ma nga nar a amee Paris incha allah le 19 novembre ca de Prince bu soobee booy waalox moom nag ka muy défier di tonnerre numéro Hercule ak nga ne mooy Jackson seen combat ba nag feesul woon maanaam nit ñi ñëw ñu woon en masse lan moo tax am na ñaari raison première raison bi combat ba na naroon am dañ ko changé wala blessure dafa am ci adversaire bi combat ba amatul ñu indi leen beneen combat waaye CNG heure bi ñu joxee dafa teel lool ba tax na nit ñi balaa ñuy pare pour jëm stade fekk na làmb jeex na moo waral la nit ñi ñëw ñu en masse ba léegi nag ngeer ngeer nag moom ñu ngi koy envoyé au front le 3 décembre mu war a bëri ki nga xam ne mooy Blindé bu Grand Médine incha allah. ca noonu na face to face bi am suñu gaal diggante Kalmandour ak Caatu Waalo ca xombal la nar amee promoteur bi nag dafa jël face to face am boobule daal di ko yóbbu ca xombal ca village natalam daal di ko fay teg Zal Bambey ak nga xam ne mooy boo yëmbal ñoom nag présenté nañ leen bu baax structure bu tëgg combat ba di Diourbel production démb nag ci suba lañ daal dem arène nationale daal di teg boobule combat ñaari mbëri ku ci nekk wax sa morom la nga ko naral kontaane leen bu baax a baax am mbégte ci yéen jox leen dig daje beneen yoon ci Leewtoo TV dina ñaanal keneen ak jàmm te di ko sàkku ci yéen ba suba incha allah.